mooy que on Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu di baax baax di leen jox seen wàccuwaay saa su ne nag émission bi ni muy demee nii rek la war demee ndaanaan bi ñu leen di wan ndaanaan ñu leen di seen émission tribunalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi tey nag am fi benn ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko présenté ci ci même réew ñu koy wax ndongo doomu Grand Yoff euh, doomu Sénégal doomu réew mi doomu Casamance doomu fépp macha allah ki bëgg ñëpp ki ñëpp bëgg di ko tiitaroo di ko safa ndongo dañu koy bàyyi mu nuyoo présenté wu ñu dugg ci waxtaan bi ndongo ci loo ne. waaw maa ngi nii ndongo turandoo maa ngi lay ziar bu baax a baax ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci sangu-sang yi. Mm-hmm. gërëm may ñaari waajur. Mm-hmm. di nuyu suma yaay Fatou Dumbuya bu baax. Mm-hmm. di ziar képp kuy yeewoo ci kër gi rek maa ngi lay bëggee. di nuyu anisee sunu téer. moom lu mu ñawul baaxul. di nuyu sa ménagère Aliou Niang. waaw di nuyu partout dans le monde ah. bu ñu limee dañuy jum. Mm-hmm. waaw di nuyu am di jàmm yi bu baax. Mm-hmm. vraiment di nuyu sama xa suma waaye suma xarit. Mm-hmm. Pawlish mbay maa ngi koy nuyu bu baax a baax vie. Ah, maa ngi koy nuyu bu baax sama waay la Pawlish. maa bu baax di ko ziar di ko tatagal di leen nuyu yéen it. di leen sant di leen gërëm. di leen wax ni déplacement bi yombul. waaw di leen wax Massa Coono daal soyez le bienvenu. Massa Coono mais mais mais Sénégalais yi tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Ndongo. ndax dañ ñu a wax kan mooy Ndongo. waaw loolu moom dama ciy sawar a wax dinaa ciy sawar a wax ndax di wax ci ki nga doon yàqul dara ci li nga doon. Mhm. waaw man nag Ndongo nag benn jëmm bu xeebu la rek bu dëkk Garaayof. Mhm. sunu borom sol ko aar muy pratiquer aar waaw di ci sant yàlla waaw. ndongo daal a ngi nii ndongo àdduna. Mhm. waaw ndongo bu zarko mu ngi nii. aar ngay dund. aar laay def. mais mais mais lu waral dund aar bi danga nekk doomu géwél wala aar bi da neex wala da ci am cofeel moo tax nga dugg ci. waaw xam nga aar moom dañuy wax du biir day xëy rek wasin aar du doomu géwél nàmp ma ko aussi mais mën naa ne tey lépp luy nelaw ci man ci aar rek géwél yee ko def ci man aar mayum yàlla rek comme ni la sunu borom ni ngay juddoo ci àdduna rek yàlla bind sa jënn yow lii ngay doon ci àdduna loolu mënoo ci dara. Mhm. aar sunu borom moo ko dogal ci man. sunu famille amul sax ku fay dund aar. ah bon waaw ah, sunu famille amul ku fay tëgg amul ku fay fecc man maa mujjee juddu ci kër gi maay tëgg maay fecc waaw ah, xam nga loolu moom ndimbalu sunu borom lay doon. waaw mhm. ah, xëy na nag yàlla moo ma sol aar ma koy pratiquer te maa ngi ciy sant yàlla bu baax nag vraiment. Mhm. maa ngi sant yàlla bu baax. Mhm. mais mais avant avant aar avant lan nga jot a def muy sa métier. waaw man avant may dund aar ci li ma jaar bari na. ndax avant may dund aar dama daan dem di yàlwaani dama daan dem Dakar di yalwaani ah bon sans moom loolu laa doon defaa loolu moo nekkoon sama job loolu laa defoon liggéey. ah jaar nga ci jaar nga ci loolu. jaar naa si Madial jaar naa de. Mhm. yàgg naa si torop. Mhm. waaw yalwaan laa débuté mais sant yàlla. di mhm. sunu borom bu la nammee dimbali rek. ci yalwaan laa jóge jóge foofu di dawal saret. Hmm? waaw dawal naa saret dawal naa saret deux ans. naan di faal mbër mel. Hmm. fasam maa ko daan yor. ndongo lay wax ni barki Serigne Fallou Nandi Fall maa doon yor fasam daan ko indi suñu kër di gaare waaw sama yaay tamit daan dégg lu ne ci dawal saret bi sa doom bandi la sa doom baaxul day dawal saret ma gëm ni ma gëm rek mhm. waaw loolu yëpp boo gisee bañ a tàllal loxo nit di ko ñaan la rek moo waraloon ñu doon dund loolu mhm. waaw mais après tam biñ demee ba xam ki ñu doon waaw xam ne ñun suñu borom xañuñu lépp quoi mhm. waaw tegal ñu aar ñu paraati ko yàlla ubbi wërsëg yi jàpp ci ba mu gën a dëgër. Mm-hmm. mais mais mais ci biir loolu sànq da wax na da jaar ci wàllu saraxu. Mm-hmm. Euh, parce que amaana euh, li ko waral mooy euh, ni la yàlla bindee. Mm-hmm. plus que tamit sa loxo jotu sa ginnaaw xëy na moo tax tey nga doon yor pot di yelwaani di sàkku ndimbal mais ci biir loolu lan moo la gënoon a métti ci wàllu yelwaan mi. yelwaan moom métti na torop waaw parce que ñun tamit bi may nekk xale xaw ma woon lu bëri. Mhm. waaw te dama daan gis ñi nga xam ne ay handicapé lañ képp ku cëram wàññeeku rek ko daan gis muy yalwaan man tamit ma jàpp ne loolu mooy sens bi quoi. Mhm. ma ko doon dund. mais yalwaan metti na torop ndax léeg-léeg bàyyi nga tiim nit di ko ñaan sax mu wax la loo xamante ne gaan barki Serigne Touba boo amul maîtrise dëgg bu la yàlla man kàttan nga jàppanteeg moom. Mhm. man dugg naa si oto yalwaan ni mu demal nga liggéeyi. ak ni nga mel ak ni mu mel ni mu ne ma demal nga liggéey looy ñaan affaire bi metti ma torop hmm? loolu tamit bokk na ci lu ma gën a motiver ma dem dund ji aar ma ñibbi si toog yedd sama bopp xam ne man war naa jomb fu ngay tiimatee nit naan la nangam nangam hmm. ma sant yàlla bu baax nag bokk hmm. dëgg la kàddu bi metti na woon na ma torop mais tey kàddu boobu moo waral di tey wax boobu moo wax boobu noonu mu ma wax tey moo indi lii tey nongo jàpp ci aar bi mooy ci ba mu dëgër di ci góorgóorlu. Mhm. Mhm. waaw mais mais mais ci biir ndawal saret bi bi nga jógee ci yelwaan mi. Mhm. nga jaar ci ndawalam saret. Euh, ku ne xam na ne dawalkatu saret yi am na lu ñu leen di tooñee. sànq jot nga cee jaar. Euh, may ci biir ndawalam saret mi danga loon doon ànd ak ay ay ay defkat. wala boog yow sa comportement wala loolu lan moo waraloon rek ñu jékki saa rek di la indil ay tuuma sa der quoi naan. waaw mooy loolu. wala nga mhm. ko doon dund. waaw xam nga dëgg la àdduna dafa doy waar te uude nu mu la gisee rek noonu la lay ëwalee. Mhm. amaana yeneen dawal ko du sare yi ñu doon gis ñuy dund yenn ñaawteef yi moo waraloon ñu jël étiquette boobu tàppeel ma ko mais man dawal naa saret ba ni may bàyyee dawal saret musuma ànd ak kuy jël alalu jàmbur musuma ànd ak kuy def lu ñàkk fayda. nee naa la maa ngi naan di faal mbër ñoo doon ànd ñooy xëy nekk ci saret bi pàq ba lañ doon taxaw course la ñuy yóbbu ñëwaat. après bi naan di demee ba songu laa ji ba nekk ci bëre bi dëgg man ak Bateka ñoo yoroon fas bi doon ci dund doon ci dugg limbaa di liggéey. Mm-hmm. musuñu jël alalu jàmbur soxlawuñ dërëmu kenn. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. léegi bi nga jógee ci ndawalam seret mi nga dugg ci aar. man année nga dugg ci aar. waa aar ba mu ci duggee nag yàgg na yàgg na torop. yàgg na ay 2007. ay 2007 2008 ah. 2007 2008 waaw ay 2008 yooyu. Mhm. laa ci dugg doon ànd ak ñoom Memba. di mhm. góor mhm. mais avant ñoom Memba ñii laa njëkk a àndal ñu daan fecc ji ay fuura. waaw gëm naa ne tey su ma nekkee aar tamit yàlla ak ñii la. parce que ñii ñoo ma dooleel. moom xam na ci sama carrière lu bëri parce que am na yu bëri yoo xam ne maa ngi moom ñoo ko doon defandoo man ak moom ak Olivier. ñoo ko doon defandoo may nuyu Olivier bu baax moom instant mi ngi Ziguinchor. di dëbb zig ba mu nooy. vraiment maa ngi koy ziar bu baax di ko bégge mm-hmm. mm-hmm. di nuyu sama gars yi nekk zig yëpp ñoom papi Zak xama mm-hmm. King Lazar bu ma limee damay juum di nuyu Thieli xama gars yi ñoom manu xama rek bu ma limee gaan damay juum bilaahi ñoom it gaan ma nekk ak ñoom foofu nekkin bu nice sama dara du tarde ñu may jàppale ci lu bari vraiment nuyu naa leen ziar naa leen di nuyu paabeeg maire bi di nuyu mère Philomène ak papa Do xam nga mm-hmm. ñoom ñu yor ma ci kër gi yor bu rafet. Mm-hmm. vraiment sama xol sedd na quoi foofu. Mm-hmm. bilaay mais mais mais ci biir aar bi. Euh, bi ñu ci duggee deux mille huit deux mille sept yàgg na yàggul mais lan lan ngay dund ci aar bi. waaw aar métti na. àdduna dara yombul. Thomas. aar dafa métti. barke Serigne Touba. mais lan lan moo la ci gën a métti ci loo xam ne dund nga ko boo toggee sax soo ko xalaatee jooy. Mm-hmm. waa bëri na waaw naa ci ay sacrifice yu métti torop ndax mos naa feebar feebar bu métti boo xamante ne xam ci aar la ma dale ay yëf waaw ay yëf ci aar la ma dalee ma toog di ko gérer toog naa cinq yoo xam ne pour ma génn dem joué ji sax problème la. Hmm? mais sant nañu yàlla. ndax sunu borom buy defar day mel ni yàq. Hmm. waaw mais man séquma ak nit lu ñaaw ba ñu ba ñu war ma def lu ñaaw man aar ñëpp jàmm laa séq ak ñoom mhm. waaw mais sant yàlla nag nit moom fi xelam tool li ko xelam may rek lay def mhm. ñu ngi sant yàlla instant ñi nga am jàmm bu baax mhm. waaw di wax ni jàppale bi tamit dafa des jàppale bi dafa des bu baax te fois bu ma waree répété ji gars yi ñooy dajale paas may ma pour ma dem répété ji yor group yor groupe yoruma groupe damay liggéey dañuy liggéey ak Ambroise Gomis maa ngi koy au passage moom moo ñuy des fois moo ñu jox ay liggéey ñu dem liggéey ko <laughs> mais liggéey fii pare woo xam nga waaw kase du am mm-hmm. léegi da ngay mujj xam nga di ja waaw di góorgóorlu des fois nga ñëw woo nit sax ba mu ñëw nga ñaan ko deux ans mu ne la booy booyoo xanaa tegi woon démb wala xanaa defa woon lii démb loolu ko du ñu xalaat du ñu comprendre quoi mm-hmm. Mm-hmm. yow xam nga li aar yaa koy dund aar dafa mitti yàlla boo feeñ tele nag laa illah yaa xam ne bu ma feeñee làmb maanaam at boobu. Mhm. nit baa na ma ci may cent franc. barki Serigne Touba. bu ma feeñee télé ñëw nit baa na ma may cent franc at boobu. Mhm. waaye gaan yow feeñ na télé démb gaan fay nañ la xaalis bu bëri. Mhm. mais mais mais ci biir ci biir ci biir aar bi. yaa ngi am ay ay ay ay yoo faral di jouer wala wala yaa ngi ci soirée yi wala tànn beer yi wala nu ci ci. waaw actuellement nii moom des fois ma toog nii defuma dara ma dem ci soirée yi temps yi rek laa jóge soirée Pape Diouf moom it moo koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di nuyu buuse bu baax buuse Kécog moom suma waaye la ma ma yóbboon foofu ma dem fa Pape Diouf xam nga boobu si soirée bi fecci mu yëkkati taraanga bu bari may ma te ni mu koy defee ci Pape Diouf noonu laa koy defee ci ñeneen ak ñeneen ak hmm. parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko hmm. xar ñaar. Hmm. féete nag day xañee wërsëg. mais man artistes yëpp samay waay lañ. mais Toma damay nuyu Ibulaay bu baax. Ibulaay maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. Ibulaay borom Ndakaaru mbokkum yaay Ada Fass. Mhm. Ibulaay di la bégee mbokkum yaayu Jal Diop Sangomar bégee naa la bu baax baax di nuyu Ahmed ah. su waaw Ahmed suma rakk la moom it borom i yi rafet di ci man xam mhm. moom lu ñu sor rek gars fii lu ñu génn rek Ahmed la. waaw di ko ziar di bu baax di ko ñaanal liggéey bi gën a yokku. waaw mais mais ci biir loolu est-ce que faral di am say programme bopp comme des fois. ñu engagé la benn spectacle wala comme lu mel ne ay concert wala xew wala ay mariage ngénte wala programme yow yow amagoo doo amagoo sa programme bu bopp yow joué. des fois damay am samay programme bopp yoo xam ne maa koy joué sama bopp des fois ma engagé samay programme bopp dem tëggi ko des fois nit dem engagé concert ñëw jël si ma ñu liggéey mais lu jëm ci ay concert engagement moom amaguma ko. Mhm. waaw mais ay programme yi sabar des fois dama koy am des fois ma engagé ay tànnibeer mhm. waaw mais man moom lu ma engagé sama rakk laa koy jox mu tëgg ko nangam. Mhm. parce que yàlla moom la mu fi booleel moom laa fi dese moom laa yeewu di ko gis. Mhm. moom laa jox programme yi mu woo gars yi dama ciy àndaale dem dar ko. te maa ko jox programme bi man noonu laay dundee. mos nga tukki. waaw mosuma tukki nag mais xam naa ne yàggatul dara mu ngi sunu kanam bu soobee yàlla. ñoddi mais mais dañu gis ne da ngay fecc mhm. ci dance bi ngay def ba léegi amagoo sa groupe bu bopp waaw fecc bi amaguma ci sama groupe bu bopp mais yàlla dimbali na ma ci de ku yor groupe fii ci Grand Yoff di nga ma woo naa ci ñëw sànni sama xam-xam même bu dee ñaar ñett te bëgg naa ko nag loolu mu ngi sama biir xol bëgg naa yor groupe di géy jaay spectacle yu mag mhm. comme ñëpp mhm. parce li yàlla di maye bu fekkee jëlu ko li samay morom mun mun naa ko mhm. aar nekkatuma ci gan dëgg la waaw ah, gars yi jàngal ma ba mun naa mhm. war naa mun a am sama groupe bu bop mhm. pas waaw a yoon war na mun a nekk waaw ah, man moom li may rêvé moom bu fekkee sunu borom dimbali na ma dëgg nonga man bu may am groupe damaa bëgg fecckat yëpp nekk handicapé man loolu laa bëgg fecckat yëpp ñëpp nekk handicapé man loolu laay rêvé loolu moom mënul naa ci groupe taalibu daabo groupe boo xam ne fecckat yëpp ay handicapé yëpp ay handicapé lañ ñi yor beek ñi toog ci puus puus ma defar ak ñoom chorégraphe bu doy waar ñu joué spectacle ay américain toog ñu pare ñu yóbbu ñëpp te boobu yow yaa leen doon jàngal boobu man maa leen jàngal maa leen jàngal mais mais américains yi chaque année dañuy ñëw taalibu daabu di xool si handicapé yi ñi seen loxo jotu seen ginnaaw dañ leen di jéem a jàppale évacuer yóbbu leen boobu yàlla dogal na ñi ma ci yoroon ci classe boobu ñëpp la ñu yóbbu ñu tukki Mhm. ah mais boobu gars yi mhm. mënoon nañ la yóbbu de. wante xëy nan nag lu comme ni nga ko waxee rek lu jot yomb. Mhm. mais ndongo lu doomu Grand Yoff ci ni mu mel nii soo ko fekkee mu yor sabar da nga naan lii est-ce que mun na nekk soo ko fekkee ci giw muy fecc da naan lii est-ce que mun na nekk maanaam kon kon handicapé daal li may faral di dégg dama jàpp ne ci xel la. mais du ci du ci du ci jëmm. waaw parce que tamit nit ki ak noo mun a mel rek. loo gëm rek yàlla jàpp gëm naa ne tamit euh, gëmoo handicapé mhm. donte loolu la yàlla def mais yaa yaa yaa ngi dund li nit ki war a dund bu dee tëgg la kenn dàqul la tëgg bu dee fecc la kenn dàqul la fecc wax dëgg yàlla yal la yàlla jàppal defal la jàmm mais dañuy ñëw rek ci ay question yu ndaw mhm. euh, lu jëm ci wàllu actualité bi nga xamante ni tey moo am mhm. nga jege mbër mi ñuy wax Sarko. nga jege ko lool saa bu ngemboo di dem esaat bokk nga ci ñu koy dooleel ñu koy gunge. tey ñu toog tuuti mu waroon a bëree lakkaat bi ñu toog dégg ne combat bi amatul. yow bi nga amee bi nga bi nga jotee ci message boobu ban yëg-yëg nga ci am. waaw dañuy dolliwaat rek santaat yàlla bu baax a baax. xam nga di wax alaaji mu jàpp fi mu jàpp baax na na gën a continuer liggéey bi li ci kanam moo dàq lii foofu jaam ak pexeem yàlla ak dogalam Bébé Diène bëggeew ko woon ni Bébé bu sañoon day bëre mhm. n'est-ce pas waaw mhm. ah, yàlla moo ñëw ay dogalam dañ koy nangu rek ñun mënuñu si dara vraiment mhm. mais waajoon nañ waajoon nañ ak suñuy mbokk bu baax a baax pare woon nañ bu baax a baax ci côté yëpp nag ci côté yëpp mbër bi moo ñu njëkk pare sax ñun avant yéen mbër bi lañ njëkk avant ñun ñii pare mbër bee ñu njëkk pare kon mbër bi moo ñu gën a bëgg bis comme yàlla nag ñëw na ak ay dogalam nañ ko nangu rek ñu sant yàlla di ñaanal bébé jën mu tane ak jàmm moom it ba mun a yeggali carrière si jàmm. waaw parce que ligament croisé la am te loolu ku ne xam na ne du gaañu gaañu bu ndaw. Mm-hmm. vraiment mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal na xam. Mm-hmm. mu am tan bu baax a baax a baax a baax. vraiment. waaw. ñu ngi koy ñaanal mu am tan bu baax a baax a baax léegi euh, ku ne xam na ne doomu Grand Yoff nga. te wax dëgg yàlla des fois combat ak même dul combat sax ñu am ay rumeur yu ñuy dégg ci Grand Yoff tey soo amoon message booy jàllale ci population Grand Yoff ci ñu defaraat seen toogaay ban message lay doon waaw ah, xam nga Thomas am na loo xamante ne chaque jour sax dama ciy wax hmm. te jàpp naa ne sax tey laa ciy mujjee wax li tax ma ciy mujjee wax mooy hmm. làmb bu amee quartier bi dox dajale fu ne la nit di jóge di ñëw hmm. ay nit dañuy jóge feneen ñëw fii Zarko di bëre ñu ñëw am nga nit du sol tisetu seetu Zarko romb la Zarko nga nga nga indil ko fitna munul nekk waaw léegi yow bu fekkee da ngaa jóge benn orsad nga ñëw sunu biir town sol sunu tisetu mbër ànd ak ñun mel ni ñun te doo ñun a léegi soo fi agressé suba boo ñibbee dañ naan booy Zarko yi la waa Grand Yoff la te pourtant loolu am na fépp feebu lamb mhm. mbër yi yëpp ku ci bëre booy génn gars yi dañuy saltel ba mu salte mhm. mais du dëkk si quartier bi ñoo koy def mhm. garaaf ay nit ñu baax ñoo fi dëkk ay légende ay noble waaw ay noble Khalifa Sall garaaf la dëkk ki senegal Sénégal garaaf la dëkk dib dunu gis garaaf la dëkk kon garaaf am na ay ay ay jàmbaar baay ñoo fi nekk am na ay monument te ay xale nangu liggéey ñoo fi nekk barki alxuraan soxla wuñu dërëmu kenn nanu bàyyi étiquette bi ñuy tappel li am fii am na fépp li am fii am na fépp am fii am na fépp euh, mu mel ni que ba léegi génnaguñ ci wàllu làmb ji bërki démb tamit euh, làmb ju mag amoon ci réew mi yow làmb ji comme que làmbaloon nga nan nan nga nan nga jàngatee bi bi bi combat bi passé ni ma ko jàngatee mooy Balla il a tout fait dafa liggéey li mu war a liggéey. Mhm. ñëw bëre ak waa ji daan ko Tapha Tine tamit il n'est pas mérité. ndeysaan vraiment liggéey na la mu war a liggéey lépp. Mhm. mais làmb boo ci daanu cuune ngay doon. làmb dafa am secret bu ci nekk. Mhm. te des fois damay toog ni di déglu gars yi ñuy wax. làmb benn ñaari méthode la rek. da ngay jekku mbër mi ñëw daan ko. suba mbër mee jekku la ñëw daan soo jekkoo nag yaa mën ci àdduna mhm. buñ la jekkoo yaa gën a niil ci làmb mhm. mais kon dañ ko jekku non làmb ji keroog ko ko seetaan xam ne Balla moom moom làmb ji Balla moom moom làmb ji ndax li ñëpp doon xaar ci tafaatin yëpp Balla moo ko def lépp Balla ko def lépp Balla ko def xeex bi tafaatin lañ ko joxoon dëgg la bëre bi ñu dénk ko Balla dëgg la doole moo xeex moo bëri. doole ji ñu jox ko Tapha. lépp lañ jox Tapha. Balla nekkul woon si làmb ji favori. mais mais dañ ci tuumaal waa kër euh, ñi tëgg làmb ji dañ leen ci tuumaal ne ñoom ñoo tëgg làmb ji ñoo bëri làmb ji. ah mais nañ bàyyi loolu defet moo ñëw rek nañ ko sante yàlla. Tapha Tine wul Tapha Tine yàgg yàgg nañu ngemb beneen mbër muy ñëw di jàmmaaroog Tapha Tine Tapha Tine di ko daan. dëgg waaw lu tax du ñu wax loolu. Mhm. kon tey bu defee ñëw rek ñu bugg sulu ay mbóot. Mhm. Tapha daa war a ñaax ñaax na. Mhm. Tapha Tine mu ngi si ruqam la nga ko dégg mu wax. dégg nga ko jege si Tapha Tine génn ne dañ ko liggéey dañ ko def nii. waxuñu jéemu ñan la. bëri na ñi ko jege moom génn na. ñi ko jege waaw léegi ñoo ñoo ñoo ñoom buñ génnee suñ leen waxee wax leen lan lañ war a wax. am na lu ñu wax na daal lu ñu wax. waaw léegi ñoom xam nga lu tax waruñu wax. Tafaatine dañu yëkkati ay million jox ko yëkkati ay millions jox Balla. tëggal leen combat pour ñu préparer kon ñoom bu ñu nelawee ba Balla jekku leen kooku ñoom la. am na loo xam ne jaru sax nga siy génn di ci détail parce que boo génnee gars yi dañuy naaw sa kaw. ñoo ñu nga wax génn nañ. demal nga xool seen commentaire duñ si dégg lu leen neex de. duñ si dégg lu leen neex. mais sa mbër tamit dañoo gis ne moom tamit dafa simbali la di laaj la est-ce que yow conseil ko pour guddi yuñ toll mu jël baal. Zarko amul ku munul bëree ci àdduna de. guddi yuñ toll nii guddi yuñ toll nii amul ku munul bëree ci àdduna te borom bitiku mbagg boo gis boo xaree xol ba fekk fa magasin. yow sa diggante ak yàlla ni nga jegee sarko Zarko buñ ko tëggaloon moom ak Balla yow d'accord nga mu bëreeg moom. parce que Serigne ko gaynde la chaque jour mu wax leen boppam daa dëgër. góor gu wóolu nga Zarko de. parce que Serigne Touba ko góor gu dëgër. góor gu dëgër mën na jàmmaaroo ku ne. mais est que teelul. teel a yeew lan moo teel que teelu pour mu bëreeg Balla. il est temps mu bëreeg Balla Zarko il est yeg mu yegg VIP bëre. mais lan la ñuy bëri VIP dañ ko gën wala dañu am ñoom lu Zarko amul. mais mais mais yeggagul fi gars yi. Eh, ñoo bokk lépp lu. daanagu fi ñu fi gars yi daan ba bëreeg bu VIP. ñaata la ñuy defaree licence. ah ñaata la ñuy defaree licence. <laughs> ñaata yow la ñoom ñoom ñoo bokk même prix bu ñu defaree licence. Ah, léegi ana ana luy problème bi. palmarès. Balla Gaye lan la mbër. palmarès mooy problème Balla lan la mbër. mbër la. Zarko lan la. kon jeex na lamb boole na leen. mais est-ce que seen palmarès boole na. bàyyil palmarès lamb amatul palmarès. lamb amatul palmarès. ah bon palmarès bu riis amatul si lamb. kon su ma la dégg lamb ji business la. lamb ji gars yi dañuy business gars yi léegi dañuy wut xaalis. sa waay boo fi nekkee di jaay carrière bu rafet non dama bëgg daan Bombardier bëgg daan Balla bëgg daan Yékini bëgg fa ngay fanaan de gars yi dañ de. Mm-hmm. da ngay gis ku bëre six combats ñu jox ko mbër boo xamante ne bëri na ay vingt combats am vingt victoire ñu jox ko ko am six victoire ki am six victoire daan ko bu subaa ñu jox ko keneen ko am tarant combats kon làmb ay escalier la. Mm-hmm. làmb munoo raafal ñëpp. Mm-hmm. ko ban moroomam moo ko deseeti ci làmb. koo xam ne bëre na ay moromam mbay waaj di bëre ak ay rakam léegi nag moom may na chance ay rakam ba sonn mais na ko magam mi may chance làmb noonu la Zarko bi mu ñëwee ci làmb ñi mu war a bëreel rek la bëreel Zarko ay sàccees la bëreel ay guy gi te ñooñu tey ñu ngi leen di dégg ci VIP yi ci làmb kon Zarko war na mun a toll foofu parce que bëre na ak ñooñu fa ñëw bëreeg ñooñu ay muudaante yi yëpp Zarko dafa bëreeg ñoom ay bàcc seeraas mhm. kon Zarko bëre na yàgg na bëreeg ay ndaanaan man mhm. Mm-hmm. ay caat booy bambara jamono yi Zarko di bëreeg ñoom ñoom ñoo teewoon làmb ji. Mm-hmm. Zarko ñëw daan leen ñoom ñëpp ak manière nag tolof tolof ñëw mu teg la fi ay defetam dem toog bitim réew liggéeyaat. defaru defaru xam ne moom dafa am part ci làmb mu defaru ñëw bi mu ñëwee gis ngeen ko. Mm-hmm. ah léegi nag gars yi ñoo ci des léegi nañ ñëw may waa ji sansam ñu bëreeg moom. kon daal léegi pare ngeen pour bëreeg Balla. waaye Fawzeyni dafa war a may saa waay sens sax Fawzeyni may ñu sens gaan. moom maa koy daaneel. <laughs> barki Serigne Fallou. moom Balla Balla maa koy daaneel. moom dafa may dund man. loo koy wax. li ma koy wax mooy na ñëw may ñu sens ma créer ko lu bees. mam Balla. waaw bu ñu mayee sens ma créer ko lu bees dàq lu nooy indi ko esaat. bu soobee yàlla. <laughs> loolu ñoo ko déggandoo ku ne xam na ne parce que sax euh, ñoo ngi ci. vingt ans bi wante nag am naa lu ma la bëgg a laaj ndongo def na fi lu ne ànd naan daanaan bu ne feccal naan daanaan bu ne ndongo am nga jabar ma jabar nag vraiment célibataire nga célibataire bu wow koŋ bu pare mais est-ce bi nii pare nga pour am soxna su ma ko gisee jël gisu ko gisaguma ko bu ma ko gisee rek ma jël incha allah mais xale yi la topp nag non benn xale topp ma temps na ma fay doom day non fayagoo de parce que naa ne guddi yi moom yow la yi di wër de. yi kenn warul noonu mais maa ngi sant yàlla nag di nuyu sama mag bu góor bu baax. Mhm. moom it daf may jàppale tout le temps galas maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Babacar. di nuyu kër ga sama turandoo Ndongo Ndiaye di nuyu sama nijaay Sob di nuyu ñu nekk ci kër ga yëpp. tabandooy Ndey Diop fa jaxate wali fa Ndiaye bu ma limee damay juum ñi nga xam ne ñoo nekk kër ga di nuyu Ndey Yaasin bu baax. Mhm. waaw di leen kontaanee ñoom ñëpp nag barke alxuraan di leen wax maa ngi gis seeni ñaan mu ngi yegsi mm-hmm. waaw di mm-hmm. bulaay mm-hmm. mbokkum yaayu Ada Fass borom Ndakaaru